asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy siiwut ci suñu kër gii di Gaydel Vision euh, waaye ànd ko ak Faaida TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar euh, xam naa nag nuyoo bi du sori ndax temps bi dafa xaw a gàtt rek ak jëmm ji nga xamante ni jàkkaarloo noonu ak moom muy Gaydel loo euh, di koo xamante ni wax dëgg yàlla duñu ko présenté xam ngeen ko bu baax a baax di ko béggee macha allah Gaydel bala ñuy sori rek ñu ngi lay nuyu di la ziar. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi siyaare Maxtaar mhm. di nuyu képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel Gaydel Vision ak mhm. Fayda TV mhm. di am mbégte ci ànd bi di siyaare képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel chaîne bi macha allah di leen nuyu yéen ñëpp macha allah jërë ngeen jëf macha allah Gaydel mu mel ni tey dafa am ay question yu bari yoo xamante ni tey nit ñi posé nañ la ko euh, di la ko laaj waaye nag ñett rek leen ciy jël bi ci jiitu mooy dafa am koo xamante ni dafa wax ni euh, dafa am ku muy bëgganteel waaye ay waajuram danoo bañ mu doon laaj ban xalaat nga ko ciy jox. macha allah loolu moom bari na ci jamono ji hmm. na xale yoo xam ne dañuy bëggante hmm. waaye lu sëpp wayjur yi euh, duñ ci ànd hmm. am ñoo xam ne dañ koy teg ci seen intérêt bopp am ñoo xam ne dañ koy teg ci lan ngir bëgg koo dimbali waaye ñu si ëpp nag ci jamono ji léegi seen intérêt bopp rek euh, ci dañ koy teg moo tax sax euh, wax ko ma ne képp ku hmm. sacrifier sa doom ngir ñaar yi képp ku sacrifier euh, wayjur bu fi sacrifier sa doom hmm. ngir ak mbokk hmm. wala xaalis di nga ko layoo ak moom ndax parfois danga gis xale boo xam ne day bëgganteeg euh, as góor macha allah ñu bëggante a yàlla rek tax ñu war leen maye am mbokk mu jóge fale ñëw ne dama koo bëgg nga sacrifier amuuru xale bi dem may ko kooku ngir lan ngir naan bëgguma mbokk gi yàqu bëgguma nangam yow yaa beneen ba ca topp it da ngay gis waajur yoo xam ne da ngay gis koo xam ne xale bi day bëggante nit yàlla tax mu wóor ne ki la bëgg mhm. am ku ñëw ger leen ci xaalis mhm. daal leen di jox alal mhm. ngir e, jël seen doom loolu la ñuy wooyee jaay parce que loolu sax jaay la imagine toi waajur bi nga xam ne dafa dafa sonn ci doomam ba mu koy jur kenn fekkewul muy yar xale bi ba xale bi màgg kenn dimbaliwu ko ci loolu noonu mu màgg yow ñu ne yow léegi dañ dañ da ngay jaay sa doom. Mhm. ak doom ni mu fooree. Mhm. te bari. Mhm. te bari ñoo xam ne bëgg nañ ko. te mënuñu ko am. yow nga ne da ngay jaay sa doom. lu lu lu lu doy waar la kon bépp wayjur boo xam ne yaa ngi fi rek. te sa te sa doom di bëgganteeg kenn. loo ca man ci dimbali leen. bu dee kooka lislaamam sell na. gis nga ci moom jukkoy jullit. may ko ko te a rek tax te mm-hmm. xale yu bari dañ koy kaas mm-hmm. muy loo xam ne lu doy waar la macha allah mm-hmm. macha allah Hadj Guèye del ci leeral bu am solo boobu kon ki nga xamante ni mu ngi doon laaj euh, question boobu moom am na réponse bu ko doy sëkk waaye tamit waajur yi nga xamante ni tamit ñu ngi def lu mel noonu dinañ ci jàngate bu baax deuxième question bi ñuy ñëw Hadj Guèye del mooy kii dafa wax ni dafa nekkoon ci liggéey bu baax macha allah ay mbiram lépp di dox waaye mu xëy rek lépp yàqu mm. waaye bi mu demee ba def ay gëstoom daal dafa mel ni dañu ko liggéey jëlee ko fi mu nekkoon mu ciy laaj ci mm. conseil ak xalaat bari na bari na ci jamono ji mm. bari na ci jamono ji euh, léegi booy booy liggéey sax ñi hmm. ngay dimbali ñoo lay yàqal hmm. Sénégal foofu la toll hmm. parfois da ngay nekk ci liggéey bu baax a baax ñi nga xam ne yaa leen di dundal saa su ne ñoom ñoo xool yow nooy yàqulee après dañ lay yàqal ba pare toog di la xool waaw ah, te euh, nit danaan la dama laa bëgg fekk ne boo xooloon la ca biiram euh, ak mbañeel lay doon moo hmm. tax ma naan la bari na ku naan la lépp lu ma la yéene yàlla naa ca jiitu hmm. bu doon ne lam la yéene day soppali ku doon jëm mu taxaw ci kanamam gaynde lay doon te mooy njëkk a daw waaw li ñuy fas hmm. la yéene ak li ñuy wax ci la bool bi daa saf xorom boo boo jógee moom mooy lekk ceeb ba ba mu jeex te parfois boo leen toogee ma ngay ŋàññeeku naan ah macha allah ah. waaye su moom la nekk ca ginnaawam mooy yéene yàqal la la am moo tax boo nekkee ci liggéey bu baax na nga fas yéenee góorgóorlu da mhm. mhm. nga fas yee ñeg sa bopp da nga fas yéenee aar sa bopp ba kenn du man ci yow dara ndax jamono ji moom képp koo xam ne dëgër lu woo mhm. jàpp sa bopp taxaw bu baax a baax fu dëgër yàlla xam ne ne gars yi dañuy jaar sa kaw jàll te buñ paree ñoo lay reetaan ñoo ñëwaat sa dëj di la ziar te naan di la jooy te fekk na ñoom ñoo la rey kon boo nekkee ci àdduna moom li am solo ba am solo mooy li koy conseil mooy na gën a defarwaat na gën a na gën a euh, a àdduna moom dara jeexul. Mhm. waaw tey bàyyi xel nag ñi nga xam ne. Mhm. dañuy yàq rek. Mhm. ndax euh, bari na nit ku naan la dama la bëgg. yàlla xam ne la nekk ca xol ba ak noonu képp la. te bañ du bëgg. jaaykatu dorog sax bu nee la bàyyi naa na la wóor ne man maanaam moo bari tur rek waaye du ak bëgg bàyyeem. nit ku la bañoon ba mu neex ba mu neex mu ne la bëgg naa la. ay pexe ma sotti woon rek. waaye la mu bëggoon ci yow bu sotti woon. doo dund sax bay am. kon am na ñoo xam ne faaw nga leen di bàyyi xel bu bëggee jëriñu macha allah. Mhm. Mhm. macha allah Hadj Gaydel ci leeral bu am solo boobu kon kooki nga xamante ni moo laajoon question bi moom tamit dina ci am macha allah ay conseils yoo xamante ni ak ay jàngat yoo xamante ni dina ko ci amee macha allah. Mhm. Hadj Gaydel beneen question bi nga xamante ni moom la ñuy tëjee. muy ñetteelu question bi kii dafay laaj lan mooy sutura. Mm-hmm. Mm-hmm. sutura mooy doylu mm-hmm. waaw nit nit bu doyloo rek day am sutura cest baat bu la boo xam ne euh, bu bu oyof la nii ci dégg waaye baat bu làmboo loo xam ne lépp luy jariñ rek mi ngi ci baat boobu noonu ñun nag Sénégal li ñu gën a jafe léegi mooy sutura da ngay jëflanteeg nit doomu da ngay jëflanteeg doomu aadama ba ngeen di jëflante yee ñaar kenn fekkewu ko waaye am lu ca juddoo moom mooy génn ca bedd ma nangam jeeg nangam jee te sutura nag ci kër yëpp la baax ñaar ñii sëy dañoo war a am sutura a am nekk ci biir kër gi dañoo war a am sutura waaye hmm. imagine toi léegi la xew ca kër ga ca mbedd ma lañ koy waxtaanee hmm. sëy xew lay xew ca sëy sax léegi gars yi da gis soxna yi bu ñu ca marché ba la waxtaanee la seen borom kër defal hmm. lañ def seen borom kër man de jox na ma dépense bu mat yow kon amatoo sutura maanaam sutura mooy li nekk ci biir kër gi nga fexe koo denc sutura mooy lépp lu la nit waxa sa loxo càmm bi bu nga ko yëg loolu mooy a baax a baax ñi hmm. ngay jox say secret wala ngay wax ak ñoom hmm. ndax ki ngay waxal moo naan kee wóolu naa ko jox ko kee hmm. kee mooy wóolu kee joxaat ko kee kee say mbir tisaaroo te doo xam fu mu tisaaroo nga jékki-jékki gis say secret ci mbedd mi foo romb gaa yi di xool fekk ne benn nit boo ko waxoon ci la ba ñëpp xam ko loolu nag dafa jafe moo tax euh, nga gis koo xam ne day dund ay jafe-jafe yu métti nga gis koo xam ne day dund ay jafe-jafe yu métti yu tar trop waaye da koy denc ci xolam du ko mhm. bëgg a wax ak kenn ngir la ngir day mhm. jàpp ne képp kum ko waxal rek mhm. day génnee secretam day xaawi suturaam dëgg ko partagel du am kum ci waxtaanal noonu lay dundee ba ni muy faatoo muy dund ay jafe-jafe yoo xam ko mën a waxtaanee kenn ngir jàpp nag moo jafe nit ku am sutura dafa jafe trop ci jamono ji waaye sutura daal mooy lépp lu nit wax nga denc ko ba sa loxo ndeyjoor bu ko yëgee nga fexe ba sa loxo càmmoñ bi mu ko yëg macha allah rabbi macha allah ci leeral leeral bu am boobu nga xamante indi nga ko ci li nga xamante ni mooy sutura mhm. mu doon loo xamante ni lu tumuranke la ci jamono ji macha allah mhm. xaaj kay del jotaay bi am na solo ñu seqoon ko mhm. macha allah ci euh, mu nekk ay question ak ay réponse yoo xamante ni macha allah euh, def nga ko ci mu am solo lool ñu lay jaajëfal euh, xam naa di jox dig daje ñi nga xamante ñu ngi siibu ci suñu kër gi di Gaydel Vision ànd ko ak Faaida TV waaye ñu leen di wax ni Gaydel Vision chaîne ci dooleel ko ñu abonné ci chaîne bi mm. tey partagé mm. vidéo yi bu baax a baax a baax insha allahu rabbi mm. jotaay bi Maxtaar Taalif Vision la woon a gaydel loo borom <laughs> kàddu yu am solo yi lan ngay tàggoo waaw kontaan na mm-hmm. sant na mm-hmm. nuyu leen yéen ñëpp mm-hmm. ñaanal leen jàmm ñu wax ne fii lay xewee allah képp koo xam ne am nga ay question rek boo ko defee ci commentaire yi ci kàttanu yàlla bu ñuy dellusiwaat dinañ la répondre sant nañ leen yéen ñëpp asalaamaaleykum wa